maa ngi lay nuyu di nuyu ministre de budget di nuyu ministre des dialogue social relation avec les institutions di jaajëfal nag di ndokkeel ndax tey si suba ku ne xam na ni am na lu am solo lu ñu génnee en tant que représentant de peuple di jaajëfal député CEDEAO yu ñu tànn yónni leen pour ñu dem teewal ñu fa ndax ñu ñëpp maase nañ ni d'accord nañ si li ëpp. pour ngeen dem teewal ñu fa kon bu ngeen demee na xam ni ci tur assemblée nationale ngeen dem ci tur réew mi ngeen dem pour ngeen représenter dignement le député Sénégal le peuple sénégalais di rendre hommage nos collègues Moustapha Cissé Lo le président parlement CEDEAO ndax jàpp naa tey suba avant ñu ubbi rek war nañu man njëkk rendre hommage suñ président boobu nga xamante ne moo yore woon CEDEAO depuis ay ati at te liggéey fa liggéey bu rafet bu jeexalee kon bu ñëwaatee fii si ñun nekkaat si ñun ñun war nañ ko rendre hommage ci liggéey bu rafet ba nga fa def kon c'est vrai merci monsieur ministre rapport bi am na solo li nga ñu indil am na solo waxoon nañu ko ci commission bi li ko jiitu defoon nañ ay siminaire ànd ak la directeur BICES Moustapha Ba nee ko la nga ñu wax ci ci li nga xam mooy séminaire bi rek doy na sëkk pour que ñu comprendre moo tax na jafe-jafe yi nga xam war nañu ko am bi nga ñëwee commission amuñu ko ndax ñu ëppoon si député yi xam na li nga xamante moom ngeen indi loon te boobu ñëwaguloo li ëpp solo tamit li président la République di wax mooy ànduma ak yéen waaye gis nga askan wi ñu dul quatre-vingt-quinze pour cent ay olof lañu ay sénégalais lañu na ngeen di wax lu mën a dégg seen bopp yi comme ni ko Moustapha Ba di waxee ngir moo dugg si bopp sénégalais yi loolu ndax lu am solo la di jaajëfal le nouveau directeur douane moom yaakaar naa ne mi ngi doog a ñëw tey si plenière bi ñu ngi lay jëfal di la ñaan yàlla ndomba tànk bi ñu la takkal nga liggéey Sénégal lu kawee njot ñu la ko takkal monsieur le ministre ci loi bi boo jëlee article 57 dafa wax si projet de loi de finance année composition rapport annexe explication de premier article 45 la président loi organique déposer le bureau de l'Assemblée nationale au plus tard sourde ouverture session ordinaire unique daa di wax ne Assemblée nationale déposé ya 60 sour au plus tard war nañ koo wote bis si biir maanaam bu ñu ko déposé bu ñu ko déposé table président assemblée daf ñoo jox délai boo xam juróom bëgg na fukki fan la ñu war a wote loolu ci article 57 bi moo mais boo jëlee article bi nga xamante ni moo si toppaat di article 62 euh, loolu jàpp naa ni dafa wax ni li nga xamante ni mooy loi bi bu ñu ko dépose table bi joxewul benn délai boo xamante ni ci la loi organique war na ko see wate te jàpp naa ni nga xam ñoom la joxe délai war ñoo jox benn délai boo xam ne dañu ngi fixé ni bu ñu déposé loi bi délai boobu nag wuru assemblée nationale wuru ko passé te wutiwul loolu kon bëgg naa aussi tamit ñu xoolaat ci article 60 62 bi nga xamante moo nekk ci projet loi bi monsieur le ministre la ma la waxoon ci nomination yi nga xamante ni mooy chef de programme décret bi nga xamante ni moom ngeen indi tey loi bi pour mu sens décret bi président Ablaye waa defoon te décret boobu ñu si doon liggéey ba nga xamante ni am na circulaire boo xam ne génnoon na wax ni au plus tard le premier le premier mai deux mille deux mille dix-neuf chef de programme yi war nañu nommer décret yooyu noonu yàlla dogal na loolu amul. kon tey jii bu fekkente ni maanaam indi ngeen ci décret bi article bi nga xam ne article 3 wax naa la ko. dafa wax ne bépp chef de programme bépp boo xam ba nga koy nomee na am expérience cinq ans fa mu nekk ba pare nekk hiérarchie A te jàpp naa ne fekkente ni tey indi ngeen ay euh, procédure loi boo xamante ni da ngeen di wax ne léegi décret amatul da di nommé ku leen neex est-ce que da ngeen maanaam bàyyi xel li nga xamante ni mooy décret boobu nga xamante ni moo amoon ñi ngeen di nommé est-ce que daan am xam-xam boobu noonu est-ce que daan am njàng mi est-ce leen nommé ci li nga xamante mooy chef de wax nga tamit ci article bi nga xamante ni wax nga ko ci ci ni boo xasee teew ñenee ñi duñu teew mais ñi nga xamante ni bu la nattalee ñoom ñoo jël seen xaalis war koo séddale seen bopp yaakaar naa président Seydou war nañu faax ñun tamit ci suñu article yi nga xamante mooy règlement intérieur bees bi ñoom tam ñu leen di woo ñu ñëw ndax yow rek boo ñu waxee duñu doy beneen ministre bu ñu jox suñu xaalis bu ñëwee amul lu ñu tontu yow yaa ñuy tontu kooku yaakaar naa il faut que ñu tam ñu def benn disposition ci suñu article boo xam ni ki nga xamante ni moo jël xaalisam di jox ordonnancement di def dépense am ñu am sañ-sañu woo ko fii pour bu ñëw ñu teel leeral ba pare nag ñu boole si directeur yi ndax ministre kese war ñu ko woo muy tontu mais directeur yi nga xamante ñoo ne seen ginnaaw war nañu ko def ay disposition yoo xam ne ñoo tey war ne xam na ni amul sañ-sañ bu ñëwee assemblée nationale di tontu loolu tam jàpp naa ni il faut que ce euh, nouveau règlement intérieur bi ñu dugal ko si chef de programme tam bëgg naa monsieur le ministre ñun ñi nga xamante ñooy député yi comme ñun ñoom la ñuy laaj ñu xam turu chef des programmes yi ndax tey jii mënul leen watee la ba pare ngeen seet ku leen neex wala koo xamante ni amul sax bac wala BFM nekk politicien ngeen jox ko maanaam mu dem pasa pasare xaalis bi tey ku ne xam ne ne Cour des comptes génn xaalis boo xamante ne tey lu ko luuba la loolu lépp ñàkk jàngal ak ñàkk xam-xam moo ko waral kon ñi nga xam ñoom la ñu ñoom il faut ñu am expérience comme li nga xam ñoom la ko loi bi waxe woon dafay nekk RH A ba pare ñaareel maanaam mu xam man liggéey bi ni muy war liggéey moo gën que ñu nome ñoo xamante ni du ñu xam dara dañ leen pour politique daanaka Sénégal bu tardé ñi nga xam ñoo waroon na nekk ay daas te waroon na nekk man administration bi yëpp dañuy dem politique yi bàyyi réew mu tardé kon en loolu tam ñu ngi la see xamal ni loolu moom il faut ñu bàyyiwaat ci xel ñu ngi lay jaajëfal baax nag te aussi 2 milliards yi nga waxoon joxe nga ko en tout cas super merci jërëjëf monsieur le ministre waaye nag ma xam ne tey jii fédéral bi moom ndax tubaab yi ma dégg fii tey ci bii xam naa Faidherbe bu amoon jërbaat ci dëkk bi dina am ku mu porte plainte waaye nag <laughs> amu fi jërbaat euh, monsieur le ministre jërëjëf li tax ma di ko wax mooy xam nga ne président Macky Sall mi nga xam ni moom moom moo yor réew mi ñépp nangu nañu liggéeyam ndax gannaaw liñ fi yàqoon 40 ans defar na ko am na ñoo xam ne ñu ngi yor ay koppati léegi ñu ngi muñ mooy sama mbokk yow yu nga xam ne euh, dañ leen a ràjji woon jot nañu sek yi ñu waxaat ne monsieur le ministre am nañ ci yow yaakaar bon mooy am nañ ci président de la république yaakaar pour ñu war a toppatuwaat sotoraak yéen da ngeen fii nekk pour lu lakkoon ngeen fay ko pour lu yàq woon ngeen defar ko bon ñu ngi leen di ñaanal ndam lii mënoon nañ koo ñàkk indi kenn mënoon na bañ a wax ndax wax nañu ko waxati ko oote nga ñu wax ko ñëpp liir nañ ko waaye gannaaw dañu nekk ci réew moo xam ne looy def lu baax it am nañu lay fakastal moo tax ñuy jël bu ngeen ñëwee ñu war a taxaw pour ku leen gàjj ñu gàjj ko ndax loolu mooy dëgg ndax kenn jógewul ci asamaan doon député amul kenn koo xam ne yàlla moo la yoor nga doon député ci liste ngay demee ba doon député bon nag bu kee kooku mu ngi liggéey lu baax nit bu ko am waxam bu yaruwul waxam bu téeyul nuñ dun ko nangu ku leen laal ñu laal ko leneen la ca des mooy maa ngi sant sama mag di ko remercier comme ni ko ñëpp waxe muy Moustapha Cicero lan moo tax ma di ko wax mbir mi gaawtu la mais euh, président Moustapha mën nu ñoo yar ci parti bi ànd ak ñun balaa koy kenn a félicité jàpp naa ne ñun la war a ñun la ko war a jët waaye loolu mooy jaxase nit yi ak sénégalais yi président jërëjëf président xam na li ngay liggéey président Niass xam na li ngay liggéey ñëpp xam nañ li liggéey ñëpp balay félicité man mii nga xam ne mënumaa bind sama tur tax maa la jëkk a félicité mosa nga xam ne yaa teewal àdduna bi yëpp yaak équipe bi nga nekkaloon yépp nag ñu ñaanal ñi nga xam ne ñoom ñoo mujj a ñëw yàlla ndam bi ñu am ngeen am ñu am ko haalpulaar wii wela ɗemngel kam wedoyta wela teppel wela ɗemngel kam wedoyta wela teppel haalpulaar wii haade wuta fonde e julaare yo tom joomum alaa ɗon joomma ko no jooɗi wutte koye joomum tan fondete faan kadi wonta fonde e julaare jaafoɗon on jarama allah jarama assalamu aleykum wa rahmatullahi way o fof séréer no andole ke xewna président vous euh, remercie